salaam bikum avocat yi Ousmane Sonko yi fa ñoo déposé rabat d'arrêt ca cour suprême allah si du quotidien moo ñu ko xamal kartam bu mujj maanaam sansam bu mujj ngir bokk ci wote yi moom la sànni fi mu toll nii bës bi yéen a kaay mel ni ku naan leen faa di wax lan mooy rabaa d'arrêt maanaam li Ousmane Sonko déposé démb jaaree ko ci ay avocat am seetal attekat ba nekkoon Ziguinchor dogalu atte ba mu jëloon ne nañ dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale budget ndax sepp génne gañ ko ca génne woon jaarut yoon nguuru Sénégal fa waxoon ne àndul ca dogal booba tax mu yóbbu woon ko ca cour suprême bañ demee nag ca cour suprême atte ka def wax ne atte bi fañ ko war a attewaat ci tribunal bu Ndakaaru waaye ba ñuy joxee seen dogalu atte boobu ñoom waa cour suprême juróomi attekat ñoo waroon a toog waaye ñeent ñoo toogoon attekat ba ñuy wax Aïssatou Diallo Ba moom fa bañ na du signé dogalu atte boobu te toogutoon neenal seen dogalu atte boobu loolu mooy rabat d'arrêt léegi nag fekkee cour suprême fa wax na loolu dëgg la su boobaa Sonko fay mën a bokk ci wote yi les si ko yéen a kaay dëggal ko ne avocat Ousmane Sonko yi juróomi njuumte yoo xam ne cour suprême fañ koo def bi ñu joxe seen dogalu atte bi loolu lañ kalaame ñaawlu ko te fa sàkku nag balaa fukki fan ñu amal audience atte ko ndax yëf fa war a gaaw yoor yoor kaay na leen voilà gis ngeen cour suprême boobu foofu renvoi du fa am yéen a ngi fàttaliku dàqoon na mu a kaay na ñun kay ñu ngi fàttaliku mujj waaye bii moom xanaa fa ñu xor rek fan la nar a mujj réewum Sénégal bu mujjee ci ay loxom moom Cheikh Bamba Dièye ko falee président doxalin bu jaarul yoon jubal réew mi ñoŋal ko gim bëgg ma koy wax ca wal fajiri yéen kaay fa caa yokk na réewum Sénégal nag ah banqaas bi toog fa mel fa bëgg a fàqade ay yow fa xool am na ñetti téeméeri milliardaire yoo xam ne ay fonctionnaire leen foo nga ne loolu jàmm la la jàmmi Sénégal nag ak lu ko suqali mooy ñu fal ko président moom Alioune Sarr ma ngi koy wax ca témoin yéen e kaay candidat la turbine yéen e kaay moom fa ñoo xamal ne cour suprême fa gàgganti waa sénéraay yi coupure bañ coupé woon signal wal fajira ba ba pare tëj ko léegi nag turbine yéen e kaay fa wax ne waa sénéraay yi fa ñoo artu turbine yéen e kaay ngir ñu bàyyi propagande bi ñuy defal Bougane Gueye léegi nag Babacar Diagne ndax dana def li ni mel jëm ci journal boobu ñuy wax Le Soleil ndax ñoom it ña ngay propagandal Amadou Ba seen candidat ba ndax sénéral dana aaye Le laaj bi nag te ñu laaj mu tontu moom Madiambal Diagne fa wax ne Bassirou Diomaye Faye du jàll de candidat 2024 du bokk ma ngi ko waxee ci waan grand place yéen kaay ci aw yoonu bokk 2024 mooy Cheikh Bara Dolly dox na jéego bu njëkk jëm ci wàllu déposer caution xaalis bi ñuy laaj ngir ku bëgg a bokk le verdict yéen kaay moo ñu ko xamal ba tey yéen kaay bi fa ñoo xamal na coon ñaa moom it la ma ngay nettali jaar-jaaram diggante moom ak Boun Abdallah Dionne fàttali ne coon ñaa moomu nag ndaw ñu bëri sénégalais yu bëri fa ñoo xam ci moom mi nekk leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy foqarti nguur yi am ci réew Afrique yi ak pétrole gaz fer phosphate or li nga xam ne daal moo nekk ci suñ suuf si te mu baax lool fexe ba mu jëriñ réewu Afrique yi loolu mooy xeex bu mag bi nga xam ne moom la kilifay réew Afrique war a taxawee ngir suqali ko enquête yéen a kaay na te fexe moytu di dal yenn réew yi bés bi yéen ne yorog nguur ci civil yi militaires yi ñoom fañ leen jox leçon ci Afrique gi fa ngay gis yoo xam ne benn la ñuy def cinq ans wala a na leen voilà réew Afrique yooyu ngeen gëstoog yeesal ak jëm ci luy suqali dendu Afrique jiitëram Macky Sall rafetlu na jéego yi nga xamante ne ñu ko ci amal lépp ngir andi coppite info yi ne kaay na ko faale ci yokkal jiitëram Macky Sall fa xar ay tànk tubóyam ngir kaaraange am ci université yi réew mi yéen dëggal ko <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi mooy ne Air Sénégal jafe-jafe yi muy jànkuwanteel tax na njiitëram Macky Sall fa taxawal plan pexe yoo xam ne fañ ciy sowee kërëg roppalaan googu ngir bañ mu suux daanu démb lañ doon amal réunion ci seen biir l'observateur moo ñu ko xamal ba tey yéen kaay bi ne téeméer ak ñaar fukk ak benn biis yu bees tàq yu BRT bi daloon nañ ko te BRT bi fay tàmbalee daw le 27 décembre 2023 loolu lu baax la li bon nag mooy dorog cocaïne bu bon bi ñuy mëq nga xam ne gars yi trafiquants yi fañ koy dugal ci réewum Sénégal waaye terewul takk der yi seen xarañ ñu ngi leen di jàpp rek yaaw fa ngay xool ñetti tonu cocaïne drogue bu bon bii moom la takk der yi jàpp ci géej gi ci ab bato boo xam ne bitim réew la bàyyi ko woon le quotidien yéen kaay ñu ko xamal Vox Populi ko ne ñaari junne ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk juróom ci kilogramme cocaïne Ibrahim moom lañ teg loxo bato bañ ko jàppee nag ma nga tudd ville Abidjan dorog ba nag buñ koy xayma ci xaalis téeméer la ak ñaar fukk ak juróom ci ay milliards aay l'observateur na ko faala ci yokkal am na fukki nit ñoo xam ne jàpp nañ leen ca moo ñu doon trafiqué drogue bi bokk na ca ab sénégalais source ay yéen a kaay dëggal xibaar bi ak libération ak yéen a yu bari fa ñoo xëy di ñu xamal ne jàpp gi kay record la maanaam musuñoo jàpp lu bëree nii ci drogue tàggat yaram ligue des champions démbu Barça fa mbuqi fa mbuqi Dortmund fa mbuqi Paris xaw tuut ñu mbuqi ko fa rëcc 1-1 waaye tey nag équipe bu mag mag bi Real Madrid fay bal naka noona Lens fa nar a dékku Arsenal Man United moom tey bu dóorut fay fari new sunu làmb yéen kaay fa ñoo xamal na écrit Langsar fari nañ new de fa ñoo dugaloon recours kalaame waaye CNG bi fa dëggal ndamal Lac 2 ca kaw Siteu les su ko yéen kaay na ko voilà Lac 2 ngay wax fa wax na VIP yi fañ koo ragal ndax fa ragal mu nekk roi des arènes moo tax ñu di ko daw donte gaay yi fa ñoo wax ne Lac de Guiers 2 du bëree a soxna yi ñu tëj kaso fa ñoo jur doom rey ko yàq ëmb yi ni mel vox populi na soxna yooyu nag fa ñoo wax ne li gën a tax ñuy xam doom di ko rey mooy sénégalais yi su fekkee fa ngaa xam doom te xamoo jëkkër wala nga am jëkkër ba pare sa jëkkër nekku fi nga war na lor yu demee noonu daal sénégalais yi fañ lay mën a xas di la wax wax yu ñaaw gàcce googu nag moom la ñuy bañ mooy tax ñuy rey seen doom yi léegi suñ la jàppee tëj la kaso nga am ñaari gàcce déedéet benn gàcce gën ñaar lii xam-xam na bàyyi leen ñu judd bu luy dëgg te libération xamal ñu ko ma nga amee ca Tiwaawan pël benn dof bu jigéen xam ñaar fukki at ak ma fa manqué ndeysaan fa daanu ci ab